bu ñeenteel bi ci li njabar def ci pénc mi mooy yàqum alal yàqum alal ndax liñ lay laaj xel nanguwu ko yàq alal liñ lay laaj xel nanguwu ko ma ne xoolal tey waa ju toog nit ñi rang di ñëw ci moom pour mu gisaaneel leen te balaa kenn ñëw da ngay dagg ticket 4000 mu ne 80 personnes laay jël bu subaa mu xëyaat. léegi nit ñi koy kiiwoon dañuy def dañuy def seen tën yi bopp dañu togg ay añ ak ñoom seen yëpp alal jooju nga xam ne moom la yàq foofu li mu jëriñ bokk na ci yàqum alal moomu léeg-léeg nga dégg ci kër fekk fa xar mu duuf mu neex a dibi ñu ne xarum benn melo la mo mooy gàllaaju kër gi loolu du yàqum alal duñ ko dibi. bàyyi ko ci kër gi rek muy taxawaal nan ko dibi ceet ceet am na ñoo xam ne ganaar lañ koy def ñoo xam ne kanaara lu nañu def ko waa ji nuñ ko dibi waay jabarkat yee te kat fi ne bu xar mi deexee ñu la santal yàlla yóbbu na saw ay xar yi yóbbu ay nit ñi بخار يامون من بخي تابسكي دا جوت دا جاب ام خر ген كو بير فاميم جبار جاك دوم جاك يوي نيو نكو ديكرين دي بور سا يا ابن ادم خلقت الاشياء اللي أجيلك وخلقتك اللي أجيلي لا تستخل لما هو لك عمن انت له حديث القدس مكو واخ يونت بي حديث القدس دا فخني يالا نانا لي في نيك ليب يينا man nag ma moom leen ndeysaan mu ne rikk waay bu leen fi nekk ci yi ngeen moom ba far yi leen moom moom leen ngeen fàtte ma kon njabar bokk na ci li muy yàq mooy day yàq alal nga joxe ci lu kenn xamul nu mu toll tey li nga joxe lépp ci zéro lay dem nag ndax duñ la defal dara ndax du deux bu doon deux plus deux égal quatre nga des tan waxe njabar du 2 plus 2 égal 4 mukk psychologie la rek dindu ko mu dañ xale bu jigéen bi dafa def bag ñew ni ma papa oustaz <laughs> dama bëgg nga ñaal ma damay def bag mu ne ko mas nga def mu ne bii sama ñettel yoon comme affaire bi mbirum géologie la ma ne ko duggal ci néeg bi ma ñëw mu dugg sama néeg ma dugg néeg soxna si rek wut fa ab ab euh, suru dënk ñëw fekk ko fi mu toog rek ma muur ko ko dem ca saal ba di waxtaan <laughs> mi ngi ñaq ñaq ñaq waaye ñi moo ko mburi ma waxtaan mu neex ma rek ma ñëw ne ko muret mu ne ko tàllal sa loxo mu tàll ma jabatoo jabat ba mu neex ma rek ne ko tuf ne ko demal bu fi jox kenn loxo nag li fekk àggu ca kër ga mu dem def rek am dégg nga daal ni morom am nga mu ne ko oral laa am mu ne ko ànd dem ci papa oustaz <laughs> affaire bi ci ci xel la nekk te moo ko indi ma ne su ma ko defulut la ma ko defaloon su génnee dana ko laaj rek ma ne ko demal ci néeg ba xaar ma maa ngi gis moom mi ngi bëgg bi <laughs> ma daal di koy muuraat dama ma muuroon kële dam yàgg mu ñëw muuri ko ñaal mu mu génn ci ci fenêtre bi ma dégg ma naan ko muur na la <laughs> mu ne waaw rek mu bëgg donc gis nga yooyu la la la jabarkat yi xam ci boppi boppi nit ñi di ko topp nag di ko exploité bi ci indi di ci jël ci xaalis loo xam ne kenn xamu nu toll waaye mbokk yi koo xam ne ci koñ bi dafa luye pantere teg ab matelas ak kurus dong dañ koy tibbal añ mbaa du añ yow nga jóge sa kër war sa oto 4x4 ci bunt bi moom lu mu la war a defal su fekkoon du lay ñaanal nga jege yàlla jar na ko am déet waaye ñëw fanaan ko yàqal ma diw ak na fi jóg ak yooyu amul solo bu juróomeel bi ci yi muy def ci pénc mi mooy al alaqatul insaniya maanaam rapport rapport sociaux yi njabar da koy yàq Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu daana wax ne ku feebarati ci yéen demal seeti docteur danañ la faj te duñ la booleeg say mbokk hmm? tey boo demee jabarkale bi li njëkk wax mooy moytul ko xees kii waaw kër gu amul ko xees am na léegi nga ñëw ci kër gi nag xees ku la rek nga ne kii la waxoon de way mu jàgg doo dëkk kenn wala nga dem la moytul ku ñuul kii man li ma jabar ko doo xam ne ma ne ma moytul sa jabaru mag jii bu fekkoon sama mag amoon na jabar fu ma jëm noonoo ko su toggee duma ma lekk waaw malheureusement ma ne ko amul jabar man mi ma am jox takk diggante yooyu nga xam ne moo am nekk ay rapport yoo xam ne nite def ko bëgg mu def ko suñu diggante ngay xaritoo da nga jékki-jékki rek gis sab xarit rek dootoo ko nuyoo du la fay ndekete daa am ko fa jaar ne la moytul ki ngay àndal par takkusaan nga ne galaaya rek na soog mu ne sogg lu la ñu wax la ko léeg ngay lekk ñu naan laa bala ngaa lekk sa baaram bii na ko ci capp ndax diwa nga ca léeg ñu ne la dangay fab sa caay ji nga nga nga wokk ci suuf téye ko seetetet yëpp a ngi ci lu ne waaw diggante wajur yeeg doom yeeg yooyu ci la ëpp ndax fexe ba waajur moog waajur duñ tuddante walla moog doom duñ tuddante loolu ëpp naa def cig jabar juróom-benneel bi ci yi muy def mooy ni waa làmb ji favoriser ak njabar ci pénc mi ndax dangay ngay seetaan direct ñuy defu njabar mbeur mi agsi ñu fab butel soti ci bobba fab tir sotti ca bopp fab euh, soow sotti ca bopp mu tok juróom-ñaar nan wala nangam waaw xaj bobu ñu yak nak sow kay suukaral ci naan mm-hmm. hmm? waaw <laughs> dama dem Touba ci bi may campagne <laughs> yalla ma yalla sëñ si sëñ Sidi Moxtaar ni ma sa nen yi laa nga fàttali ma ko yaay borom nen yam am ne ba xalaat ñu ko waay yàlla na ko yàlla yokk wér damaa leen ko damaa génn sama kër Dakar jëm ci bitig bi di jëndi ndékki fi ñaari yoon yi daje intersection bi ma fekk fa juróom ñaari nen te damay jëndi ndékki <laughs> maramaas yépp daldi di ñëw ne Pape Dia ne dama koo for ci intersection bi mu ma for mu ne ko waaw mu ne ma léegi loo ci nar ma ne ko xanaa baxal te ndékki mu ne ya ma ne ko baax na moom comme ñi <laughs> maamam doo nga ne ci kër gi ñëw mu koo baxal ma teg sama baxalukaay baxal juróom ñaarin ba mu bax ba ñu ñor ma xar sama mburu ndikk ca ba suur meer lay mi ñu dëkkaloon <laughs> daal ma am ngay mbokk ma ne ko cest à mu ne ma dox ci mbedd for ay nen amul looy def xanaa di ko baxal di lekk yow koy amooy mbokk Mana déet man kon sama la ci mayoon fii ne doo lekk mu ne nettaliwu ma ko lu mat wer sa bu xey dina jaar sama keur ba xam dara jot na mam déet déet déet bam yag <laughs> diké rek ndeysaan sal na ngeen fanaane ma ko yaa ngi sant yàlla <laughs> imaginel nen nen lan lañ mën a def ci moom moom nen te tujuñ ñu ko ba mën a lor mbaa muy jëriñ imagine ko rek xëy na boo doon tubaab bi mën naa jéem a pikiir nen bi peut-être def ca poson waaye sëriñ bi nag demal ci télé ba teg fa juróom-ñaari nen man lépp laa ramassé ci laa ndékki keroo maa ngi nii ba léegi tabarkàlla di di sant yàlla donc sëñ jéeri mbër yi ni ñuy def ci làmb ji dafay favoriser njabar gi léeg-léeg gis koo xam ne kii lim liñ koy defal ci biteel oto koy sëf oto spécial lay am nga fas yéene tuuroo lépp te man li ma jaaxal mooy ñaar ñiy tuuroo foog am kuñ daan am de waaw mënoo rek ba ñëw làmb ji rek def nii loo am jël waaye dañ koo gëm a gëm a gëm ñu leen di sotti am na koo xam ne kii ci kombaam bële essence lañ ko sotti jaawali biti la sotti ko essence ba ba ne ko tey ba moytu da nga daan moom xam naa ne <laughs> naam sa war a jegewu la am na ci boo xam ne mbër mi kaamil la indi ci ci biir làmb ji kaamil kaamil alxuraan boobu man boobu daaw maa ngi fii bi ma agsee nu wax nu ko nu wo ca lañ woote woon suñu marché boobu ñu doon woote mbëree na dut nu ko defati kaamil léeg-léeg nga seen mbër moo xam ne dañ koy bindal faatiha juutalal ko ko mu taxaw ca kaw faatiha ja léeg-léeg gis ci koo xam ne day dem ci jigéen bu gisee baax ngeen baal ma ci terme bi sax baaxut mu jox ko ca deret yi mbaax joojee jox ko ndax ñu bindal ko ca aw saar loolu du toskare rien que rek naa daan léegi nag ku daan ba noppi ne ginnaaw ma ma sante yàlla déedéet ginnaaw bi ngay bëre da ngaa génn woon yàlla ne seytaane yooyu da ngaa war ne ginnaaw ba ma sante seytaane gërëm iblis ok loolu <laughs> doon dëgg di